donc dafa am circulation bi nga xamante ni moom la autorité yi teg bi nga xamante ni pour dawalkat yi transporteurs yi mi nga xamante ni dañuy dawal seen oto il sont obligés ou bien ñi nga xam ne dañuy ñëw pour magal si il faut ñu respecter plan de circulation boobu donc plan de circulation bi nii la tëddee pour auto yi nga xamante ni dañ jóge Dakar war a aw Fatick jàpp route nationale numéro un wala ñi nga xamante ni dañ jóge Gossas war a ñëw booru Nioro dañuy jàpp route nationale numéro en wala aussi oto yi nga xamante ni dañ jugee Tambacounda aw Kaffrine dañuy jàpp toujours route nationale numéro un mais bu ñëwee ba fii dafa am li ngay wax lu ñuy wax Carrefour maanaam Carrefour bi nga xamante dafa am benn clinique bu ñuy wax clinique na donc fii dafa am benn Carrefour bu ñu ñëwee dañuy jël yoon bii bi ñuy wax la route nationale numéro 4 yoon bi nga xamante ni mooy lu ñuy wax route nationale numéro 4 moom la ñuy topp. buñ ko toppee dañuy continuer dem parce que dañuy dem Nioro dañuy continuer jàpp yoon bi dañuy romb dëkk bu ñuy wax Koutal romb dëkk bu ñuy wax Kawil romb dëkk bu ñuy wax Ndofane continuer ba Paoskoto bu ñu ñëwee nag bi nga xamante ni dugg nañ biir Nioro dafa am benn rond point bi nga xamante ni wetu église bi la nag ak station Total essence bi nekk fii rond point boobu bu ñu fi egsee oto yi du ñu continuer route nationale numéro 4 du ñu ko continuer dañuy aw seen loxo ndijoor la ñuy jël bu ñu toppee seen loxo ndijoor continuer nii dañu ñëw ba si wetu mairie bi mel ni kuy dem mairie donc bu ñu ñëwee ba si mairie bi ci wetu marché bi dafa am encore bu ñuy wax benn place publique dafa am benn place publique bu ñu ko continuer mooy trait rouge bi ngeen di gis nii moom la ñuy topp ba léegi continuer ko mais bu ñu ñëwee ba fii dafa am beneen route bu ñuy wax la route départementale 601 moom la ñuy jël. moo nekk nii bu ñu dawee bu nga xamante ni mat na 3 kilomètres environ dafa am benn yoon bi nga xamante ni dañ ko dañ ko dañ ko fi indi dañ ko fa def moom la ñuy jël yoon boobu moom la ñuy wax une voie de contournement bu ñu ko jëlee dañuy jël seen loxo ndijoor voie de contournement boobu seen loxo ndijoor la féetee dañ koy jël bu ñu ko jëlee continuer dinañ bu ñu dawee ba si kanam dinañ gis benn parking si seen loxo càmmoñ lay nekkee parking boobu. foofu la rek lan mën a gaare seen oto foofu aussi lan mën a wàccee seen client bu dee dañ nara a biir dëkk bi bu boobaa bu ñu wàccee client yi ba pare war duggaat biir dëkk bi mu mënuñu toppaat seen tànk loolu mënut a nekk parce que voie bi nga xamante ni benn sens rek la sens unique lañ koy wax donc dañuy topp bu ñu wàccee client yi ba pare dañuy jël yoon bi nii comme ni ngeen ko gisee dañuy topp yoon bi en continuer ko dafa am benn rond bi nga xamante ne day aw si kanamu euh, sëg yi lay aw bu ko rombee nii bu ñu ko jëlee continuer dañuy ñëwaat encore si route départementale bi ma waxoon léegi bi 601 bi bu ñu ko jëlee nag continuer nii ñëw bu boobaa bu ñu ñëwee ba si place publique bi encore mënuñu ñëwaat seen loxo càmmoñ mun te nekk parce que comme ni ma waxoon léegi sens unique la moo tax benn yoon rek la benn yoon rek ngay aw donc dañuy jël à la ñuy jël seen loxo ndijoor la ñuy jël. aw kanamu lu ñuy wax grande mosquée maanaam euh, ci jumaa ji jumaa ju mag ji ci kanam la ñuy aw continuer wetu préfecture la ñuy continuer nii continuer wetu ci kanamu lycée Mbaba Jaxu Ba la aw bu ñëwee ba fii nag egg dina euh, dal ci yoon bi nuy wax la route département la route nationale 4B la ñuy la ñuy bu boobaa bu leen neexee ñu dem Kër Ayib mel ni kuy dem bi baa bu leen neexee ñu duggaat biir dëkk bi waaw ñooñu mooy oto yi nga xamante ni dañ jóge Dakar ñëw Fatick euh, euh, euh, ñëw ñëw Fatick continuer war a ñëw Kaolack ñëw Nioro wala ñi nga xamante ni dañ jóge Gossas war a ñëw continuer ñëw Nioro wara ñi nga xamante ni dañ jóge Tamba Kaffrine wala continuer ñëw Nioro mais am na ñi nga xamante ni bu dee Gambie lañ jóge dañuy jóge Gambie aw Kër Ayib jël yoon bi comme ni ngeen ko gisee bu boobaa bu ñëwee ba fii intersection bi du ñu jël seen loxo ndijoor munu mun du ñu jël seen loxo càmmoñ danuy continuer nii comme trait bu bleu bi ngeen gis nii moom la ñuy continuer bu ñu ba si rond point bi nga xamante ni foofu la ñuy jàddee mooy wetu bi dafa am rond point bi nga xamante wetu église bi maanaam ñoom dañuy romb li ñuy wax poste gendarmerie bi nekk fii dañ koy bàyyi seen loxo ndijoor poste gendarmerie bi seen loxo ndijoor lay féete bu ñëwee continuer bu ñu ko rombee tuuti dinañ am benn rond bu ñuy daj rond point boobaa la ñuy jël seen loxo Euh, càmmoñ def comme ni seen morom ñi defoon léegi dugg biir ñooro continuer ñëw ba si wetu bi place publique bi ensuite ñëw ba fii bu boobaa continuer aussi ñëw parking bi e def rond bi mais am na li nga xamante ni bëgg naa ko wax li nga xamante ni am na solo parce que ñooñu mooy li nga xamante ni circulation bi nu réserver pour force de sécurité yi rek ou bien euh, les véhicules d'intervention la ñu koy waxee pour être les véhicules d'intervention mooy véhicule oto yi nga xamante ni oto gendarmerie la wata wala oto sapeur pompier wala oto service des jeunes en tout cas lépp li nga xamante ni véhicule intervention la ñoom rek ñoo mën bu ñëwee ba fii euh, au lieu ñuy jël seen loxo ndijoor pour def voie de contournement bi pour dem si wetu parking bi ñoom am na possibilité continuer bu naree parce que fii place publique bu na bu leen neexee ñu continuer dem si biir parce que certainement dañuy dem intervention moo tax ñoom rek lan may sañ-sañ ñu continuer dugg si biir nii. dugg yoon bi à part ñooñu amul beneen oto bi nga xamante ni am nga sañ-sañ continuer yoon bi waaw jër ngeen jëf donc loolu la ñu ma santoon pour ma wax ko ren euh, li may ñaax aussi euh, mbokku chauffeurs yi mbokku dawalkat yi moo di nan daw ndànk si tali bi ndaxte accident yi des fois day day day waar yenn accident yi li koy waral mooy ñàkk a code de la route waaw ñàkk a respecter code de donc ñoo ngi leen di ñaax ngeen daw ndànk respecté code de la route maanaam panneau de signalisation yi lépp li ngeen di gis ci mbedd bi ak aussi force de sécurité yi gendarmerie di ngeen gis ay éléments gendarmerie ci yoon bi ñi nga xamante ni dinañ leen wax dinañ def ay signaux réglementaires bu boobaa luñ leen wax ngeen taf ko ndaxte pour seen kaaraange lañ fi nekkal ak kaaraange pèlerin yi lañ fi nekkal waaw jër ngeen jëf maa ngi leen